UCAB FM. li gën a fës ci yéen i Papa Saer Mbaye. bis simili Sénégal gu sëngeem nekkati ci aw tiis daanaka yéenekaay yu bëri moom la ñu xëy kenn ku ci ne dañu nettali accident bi nga xam ne kon moom la ñu yendoowaat ni ki démb foofee ca sàkkal sunu naataango yi di la soleil di xam ne rek ne ab benn lii di kaar ba tax naka lim bu takko takko ci ay doomu aadama ñàkk seen bakkan ëpp na ñaar fukk l'observateur yéenekaay xëy di ko koññil ne koy neel ñaar ñoo xam ne kon des nañu ci accident boobu bu bëree bëri nag am ay gaañu gaañu sunu naataango yi di yi ak yoon yi nga xam ne kon moom lañu ci nemmeeku fi mu toll nii ñi ngay jooy lii di cycle noppee gunu sàkkal ñëw wàllu si ko yéenekaay bi ba tey di la sore di xam ne ñaar fukk ak ñaari doomi aadama ñoo xam ne kon ñàkk nañ seen bakkan ñaar fukk ñett ñoo am gaañu am na sa nag juróom-ñaar ñoo xam ne nag métti leen noonu ca lool juróom-ñaar ñooñu nga xam ne sax dañoo métti la lool dañ leen mujj rek rawale yóbbu leen Dakaaru hélicoptère lañ leen jëlal yéenekaay bi xëy di xamal na jiitu réew mi moo yónnee ab hélicoptère ngir rek ñu jël ñi nga xam ne ko ñoom am gaañu gaañu tar yooyu le ngir ñu mën leen yóbbu Dakaaru wàllu accident bi nga xam ne kon moo am benn kaaru Njaga Njaay la ak benn camion boo xam ne kon yéen kaay bi moo xëy di xam le rek ñoom ñoo daje ginnaaw rek daje gu métti goo xam ne kon def nanu ko oto bi nga xam ne kon ab horaire la lu toll si ñeent fukk ak ñaar ci ay doomi ñoom nag ñoo ca nekkoon ma nga jógoon ci dëkk bi nga xam ne kon Mamadou Ndiokk Fall nekk ca commune bu Sakal su naataango yi xëy di xamal ne jëye ji ne kon moom moo am rek ci diggante li nga xam ne kon moom moo di guddik dimanche jàpp altine bi juróomi waxtu di jot la moo tolloog sa sàkkal yéen kaay bi xëy di xamal ne lii bokk na ci accident yi a métti yi nga xam ne kon dëkk ko daanaka nag ña ca ëpp rek ci nga xam ne ko dëkk googee moo di foofee nga xam ne kon ka xam ne lu nu mel doon rek maire bi nga xam kon moom moo di bu ngën saar su yi ba tey di xam le ne jamono ji nga xam ne kon moom moo di accident yi ña nga cay waxtaan ak xool naka lañ cee mën a def ba am ca saafara am beneen bu métti boo xam kon dal na ci biir réew mi yéen bi xëy di xamal nag ne eh, kenn ki nga xam ne kon ñoom ñoo ci amee ay gaañ ci wàllu accident boobu de eh, loolu nag dëkk bi nga xam ne kon moom moo eh, ba tey ña nga ca di nettali kàddu yi nga xam ne bi nga xam ne kon mooy bi nga xam dafa doon bëgg a moytu benn ko mbaam moo xam ne kon daanaka nag jeyee jee presque ci moom la jóge su koy xëy di xamal nag ne jàkkaarloo boo xam ne kon ñaari oto yi jàkkaarloo noonu ko mbëkkante loolu nag indi na jëye ju métti ginnaaw circulo euh, sàkkala ngook yéen kaay bi di Sud Quotidien noonu la xëy dinu ko nettali nenu koy boo koy xool ñaari accident yi nga xam ne kon moo am ci daanaka euh, diirub benn ay bés dong foofee ca Kaffrine bi nga xam ne kon lu ëpp ñeen fukki nit seen bakkan rot na ca yéen kaay bi xëy kay nañu ñeen fukki ñaari ñu ca faatu woon am na nag lim bu takku ñu ci amoon ay gaañu gaañu jamono ji nga xam ne kon euh, ca nekk nag di ko jooyte noppee gunu sàkkal daal delsi na jëwriñ ji nga xam ne kon moo jiite gouvernement bi doon ilimaani jëwriñ ji Amadou Ba moom nag dem na ci fi nga xam ne kon moom moo di ca Louga moo di ministre de l'intérieur Antoine Abdoulaye Félix Diome waaye itam ki nga kon moo di Mansour kaay bi xëy di xamal ne ñoom ñëpp ña nga woon foofee nga xam ne kon jëyee ja fa la nii kay daanaka seen ay rangoñ se feragul ca Kaffrine nga xam ne ko ño ko doon jooy Walfadjri quotidien xëy kay di xam la ne beneen tiis dalate ci suñu kaw muy rek accident bi nga xam ne kon moo am ca sàkkal yéeni kaay di xam ne jamono ju waxtaane woon nanu ay poñ yu bëri yoo xam ne kon nee nañu moom la ñu bëgg jël ngir rek mën a uh, moytu accident yi am ci wàllu ko yoon noppeeguñu ca uh, coow li ak lenn lu ci ne am ca fi mu toll ni beneen accident dikkati na Amadou Ba ne nag mbiri moom day metti rek waaye li nga xam ne kon jël nañu ko ci ay dogal uh, danañu ko sàmmonte jëfe ko ginnaaw faatu ko ñeen fukk ak benn ñoo xam ne kon faatoo nañ ca six kilo am ñaar fukk ak ñeneen ñaar ñoo xam ne kon faatu nañ ca sàkkal vox populi yéen kaay xëy di xam le rek ne mbir mi moom metti na lool laas yéen kaay xëy rek ne nag beneen njombe dikkati na ci li nga xam ne kon moom moo di yooni Sénégal yi jamono ji nga xam ne kon faatu gi bëri na lool ci xàlli Sénégal libération yéeni kaay moom nag xëy di ko wàññi boole lépp ñoo xam ne kon daanaka ci benn ay bés dong lañ leen wàññi ñoom ñëpp accident na ñeneen ni ki démb ca Saar yéeni kaay bi xëy di xamal ne kay accident bi nga xam kon moo ca am doon dox ci diggante benn kaaru njaga njaay ak camion libéré libération yéen kaay xëy di xam la rek ne kay jamono ji nga xam ne kon ca la ñu toll kon nag jël ay matuwaay jot na lool jamono ji la ñu nemmeeku la koo wëñil les échos yéen kaay doon wax lu jëm ci ak matuwaay yi jël car bi nga xam ne kon fanweer ñaar donc ci ay doomu aadama ñoo ci waroon a nekk ba ñu ko xoolee ca dëgg-dëgg juróom ñeent fukk juróom-ñaar ci ay adama ay ñoom ñoo nekkoon ci biir yéenekaay bi xëy di xamal na nag lii jot nag ngir ñu mën cee jël ay ay matuwaay ndax surcharge bi nga xam ne kon nemmeeku noonu ko ci yi ba tey yéenekaay bi xëy di xamal nag ne Sénégal gi kay bay boo nag ñu xoolaat lu jëm ci wàllu taxawaay bi ndax nag matuwaay moom mënut ñàkk ngir ñu mën ko caa jël ministre bi yore wàllu ko transport doon Mansour Faye bi xëy di xamal ne lu jëm ci wàllu taxawaay bi nga xam ne kon moom lañ ci jot a nemmeeku loole nag su naataango yi moo xëy di xam la ne <laughs> fi mu toll nii nag li jëm ci wàllu ak ëllëgam ñu ci bëri ña ngi cay samp ab moo ñu koy nettali ba tey su naataango di xam le ne jamono ji nga xam ne kon coow li moom bëri na ca lool ci anam bi nga xam ne kon moom la ñu yore lu jëm ci wàllu ko taxawaay bi Mansour Faye ak coow li nga xam ne kon moo ko ci topp su naataango yi dellusiwaat bi nga xam ne kon moom la nu génn ak lu jëm ci wàllu ko ceeb bi nga xam ne kon moom la doon sedd ko coow la nga xam ne kon amoon na ca yéen kaay bi dellusiwaat di xam le rek ne leneen lu ci yokk si mooy rapport Cour des comptes bi nga xam ne kon ñu ngi ko ca doon wax ak lépp lépp lu jëm eh, ci wàllu taxawaay bi nga xam ne kon moom lañ ca taxaw eh, su naataangoo di xam la rek ne coow la seddagul ñu am beneen accident boo xam ne kon eh, cycle la amoon ñeent fukk ak ñaari doomi aadama faatu ca ñu ci bëri ci biir réew mi yëkk seen ay kàddu ne nag daa war a tekki ndomba tànkam beneen accident dikkati gàllatu ci wàllum dem ak dikk bi di transport bi yénn kaay bi xëy di xamal nag ne loole doon na loo xam ne kon lu naqari lool askan ñu ci bëri ña nga yëkk seen ay kàddu ne nag Mansour Faye na ngir mu tekki ndomba tànkam yénn kaay yu bëri di fàttaliwaat nag ne ki nga xam ne kon moom moo di Abdoulaye Diouf Sarr mbir mu nu mel ginnaaw bi nga xam ne kon daloon na ci kawam waa kër fu ne ñu leen fay jàmbat ba tax nag jamono ji nga xam ne kon fukk ak benn ci ay xale faatu woon na na ci hôpital maam Abdoul Aziz Dabakh ba ca Tiwaawan moom nag ba mbir ma amee danoo tekki woon domba tànkam yéen kaay bi ne loole nag kon jot na ngir ñu mën a xool li nga xam ne kon moom moo ëllëgu ki nga xam ne kon moom moo di Mansour Faye accident bi xëy na di ca nettali kàddu ñenn doomi aadama ñoo xam ne kon genn nokk njaboot nañ seen ay mbokk ña indi ay seere ci li a xam ne kon moom moo di ne kon moom la ñu yendoo ni ki loole nag yéenikaay bi xëy di xamal nag ne nguurug Sénégal yónnee woon nañ ab hélicoptère fi nga xam kon moom moo di ca Louga ngir rek mu yóbbu ñi nga xam ne kon ñoom ñoo tawat ngir ñu mën leen caa faj yéenikaay bi ku ci ne ci ñi nga xam ne kon ñoom ñoo di kilifa yooyu lee di cay rek yëkkati seen ay kàddu su naataangoo yi di eMédia point sn moom nag xëy di xam la rek ne jamono ji nga xam kon ci ci la ñu toll ki nga xam ne kon moom moo di Mansour Faye nag bu kii di nguuru président Macky Sall bu doon oto ñu ne nag surcharge ba dëggantaan Mansour Faye la jamono ji na ko ca lool ci taxawaay bi nga xam ne kon def na ko ca yéenekaay bi xëy di xamal nañu ci bëri ci biir réew mi lenn rek la ñuy sàkku mooy ki nga ne kon moom moo di Mansour Faye li nga xam ne kon moom moo di toogu bu nekk na ko ci nguur gi ba tey yéenekaay bi di igfm point sn nekk ci internet bi moom ma nga ca Casamance ak lu jëm ci wàllu fitna ju nemmeeku noonu ko ca yéenekaay bi di xam le rek ne am na benn soldaar boo xam ne kon faat nañu ko ca am na ñeneen ñeent ñoo xam ne kon am nañ ca ay gaañu gaañ ca ab opération boo xam ne kon doon nañu ko ca amal sunu naataango yi xëy di ca fésal lu jëm ci wàllu jàppante bi nga xam ne kon amoon na ca yéenikaay bi ba tey di xam la rek ne fi mu toll nii kay bëri na ci ay defkatu ñaawteef yoo xam ne kon ña nga foofe ca Casamance ñoom ak l'armée nga ci keneen koo xamante ni si moom ak der bu ñuul daanaka neexantewul woon dara muy Marine Le doon nag ki nga xam ne kon moo gën a ràññee ko ci kujjëg politique yi foofe ci réewum France yéenikaay yu bëri ñoo xëy di nett leen nag nag ab tukki la am si eh, fi nga xam ne kon moom moo di ci biir réewum Sénégal sunu naataango yi xëy di xamal rek ne eh, jamono ji nga xam ne kon ci la noo nekk kii nga xam ne kon eh, daanaka nag der bu ñuul moom mënantewu na moom dara ndax nag lu ne lay yàq nga xam ne kon ñoom ñooy der bu ñuul bi fi mu toll nii ma ngay lewatal ay bët ci li nga xam kon moom moo di réewum Sénégal sunu naataango yi xëy di xamal ne ngan gi moom la amal xam ne kon moom moo di ci biir réew bi sax ab bëgg-bëggam benn boo xam ne kon bëgg na ko ca yéeni kaay bi nag di eMédia point sn ak Dakar Actu ñoo ñuy xamal nag ne kii di Marine Le Pen la mu bëggoon rek mooy mooy ab audience boo xam ne kon da ko doon sàkku ci njiitu mi président Macky Sall sunu ne njiitu nëbbu ci làqu wu saa su ko bëggee wax nu ko neexee la koy waxee yéen bi xëy di xamal ne amal na fi ngan naam ci biir réew mi waaye nag du fi yaatu xat na fi lool mbokk yi yéen kaay yaa ngoog dig daje lëkk inchaallah UCAB FM li gën a fës ci yéen kaay yi Papa Saer Mbaye